communiqué bu EF Louga daal di génne ngir tere bépp sabar ak simb yu ni amal si l'école yi le rawatina activité gouvernement scolaire yi tax na ba population Louga bi di ko rafetlu sukkandikoo nag ci yenn élèves yi ñoo ngi xam leen ni décision bi dañ ko waroon teel a jël. pour fii école bi fi di Fusco ñu ne dañuy majorette duñu wax nit ki imposé ko na ko yow da ngay ñëw nga fetti par force yow yaay dem nga mais su fekkee dañ laa ne kaay fetti yow nga jël ñu fecculoo yéen ñi nga nangu ko ba yëkkati say yére say yaram di feeñ. tamit yow la neex mais pas école bi ñoo la ko sant wala dara. ay fecc ak yooyu noonu amul benn njëriñ wutul dara ci école yokku la dara caaxaan dong la amul leneen waaw. yéex nañ cee jug daal moom yéex nañ cee loolu sax waaw. yi nag seenu côté ñoom ñi nag ànd si lu nu mel. jàng moo leen tax même boo leen feet boo leen jàngee année scolaire ba mu jeex ba war a def def seen foyer nan nan bàyyi nan xam nu ñuy soloo. te am na fecc yi nga xamante ni si jamono ji man maa ngi koy gis neexuma ndax xam nga tax di génne say cër nga xamante ni da nga koy ba ca kaw. ah di def ay yarami neen xam nga ni loolu taxawul fenn ay xale yu ndaw yoo xam te ne juddu wuñu tolluñu fenn. loolu ba tey njiital conseil régional de la jeunesse mu ngi ànd su lu nu mel. wax culture rek wax humour mën nga reetaanloo nit ñi mën nga feccloo nit ñi mën nga defloo leneen nit ñi waaye dem ba nga xamante ne si euh, mag du mën a xool li xale di def loolu day nekk leneen. gannaaw bu nu sukkandikoo si njiital commission féminine bu conseil national de la jeunesse moom nag li muy xamle rek moo di. Euh, nañu xoolaat rek nuñ koy defalee koy defee daal mais quant interdiction bi vraiment waroon na mën a ñàkk. sabar yu doon amal si l'école yi ak simb yi dafa nekkoon lu doy waar ba tax nag yëf bu Louga gi dakkal lu nu mel daal di génne bile communiqué di tere bépp sabar yu ni amal.